match amicaux kon yaakaar naa ni bu leen jàppalee ëllëg si biir mën nañoo génne lu bëri bëri ci jàppale maire bi monsieur le maire Diatta Ka mu ngi leen di jàppale bu a baax ci dëkk Suzuki guy. merci Ousmane yow it jaaroon nga ci waaye da ngaa teel a daw yaa ngi sa meer yéen a yem voilà yooy yooy Bachir Sali yooy ah bàyyi nii kay di nga am ñu nga bëgg. ko eh, may ma tuuti mu puus. waaw ah, c'est bon. mais moom la ñuy tuddee monsieur le maire Gossou Sow état supérieur. deux, trois, quatre. Je suis Alexis. Oui. Oui. ya? Okay? merci merci merci parce que dañu am problème contrainte de temps gars yi ngeen defal compréhension merci merci s'il vous plaît merci gars yi ngeen jàppale ñu parce que tamit euh, dañu am ay contrainte de temps voilà mais euh, bien représenté di gërëm tamit euh, le comité de santé monsieur Sary gërëm nañu la merci donc au GIE oui voilà Yeah. Kon. Fayu. Dama. Sama gars na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw. Yacca. Ay sa messieurs. Fayu. Kon. Xari kumpu. Toi. xale yooyu bu baax laay nag yéen may leen yoon bi waay s'il vous plaît. kon war ngeen def ba ñëw ngeen ñu bàyyi leen ngeen def baaxul. gars yi collision yi am foofu de. mais il faut que ñu jéem a aéré foofu tuuti quoi. voilà merci gars yi ngeen tàcc ko ay belle démonstration merci. ana keneen may du ko may du ko may du ko. to your wife. Why are you going to know tàcc leen ko waaye tàcc leen ko gars yi lii naaj na macha allah taal bi ñu saa yi tàcc leen ko. bon gars yi gars yi. merci on a fait. je vous en prie. on est les gars yi tàcc leen ko baax a baax merci. merci. gars yi merci. merci merci. gars yi amul taxaw dañu ko amul taxaw. Mabula ci la association des rameurs jongkat yaa ngoog borom taali jaww yi après c'est ngeen Seydou Bafouli Bafouli gars yi s'il vous plaît Bafouli mu ñëwul ba léegi donc yooyu foofu noonu

Thank you. commencer à drapeau Corée ak drapeau Sénégal. waaw ñu naan vert de jaune de rouge. voilà. maami yi bi di teg seen nuyoo si loxo imaam Cheikh Diouf mu jotale na ko imaam yëpp ñuy dellu tam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu yàgg fi tawél di ñaan yàlla li ñu nu jiite sambram defal leen si ndam ndam li mooy lépp lu ñu wax doomu aadama yi dégg ko kon yàlla na yàlla defal leen ñoo ngi nuyu suñu wayjur yi toog ci tànt bi ca suba ba léegi muy grand sëriñ ak i notable jaraaf ndey ji réew ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ñoo ngi nuyu le commandant brigade bi nga xamante ni mooy Mbagnick seen ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni moom la taxaw ci bis bi ak lu jiitu bis bi ba tey lépp loo xamante ni muy ci wàllu sécurité car sunu borom def na ñoo ngi ci gën a am ak leeral ñoo ngi nuyu chef de service technique yi nga xamante ni ñoom fii lañu leen affecté ñu nekk conseil technique commune bi di mool yi di baykat yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm tey rafetlu li ngeen xamante ni moom ngeen fi def mu di ab liggéey nuyoo boobu bépp dañuy jël teg ko ci loxol inspecteur départemental de Thiès muy mbay Alioune mbay ñoo ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di rafetlu sa liggéey sa digganteeg Moli Kayar AMP capitaine Diop ñoo ngi lay nuyu moom itam ndax dafa am loo xam ni jëloon nañu nuyoo bi teg ko seeni loxo waaye duñ si mën a bañ a ñàkk ndax vraiment dangeen ngeen di taxaw askan wi ni ngeen ko war a taxawoo kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm waaye itam noo ngi ziar sunu wóllëre sunu xarit sunu sëriñ bi nga xamante ni mu ngi ci kaw turbine bi sëñ Cheikh. Dia ñu ngi lay nuyu di la ziar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na nga dajee ngërëmal Serigne Mor Dia mi si maam ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaye nag du ñu wax nuyoo mukk te teguñu ci suñu Serigne bi fi jógee sànq ak mbooloom si guru laax mi mu àndaloon muy Serigne Moustapha Mbacke ci yëg gi mu am ci nun ak yëg gi mu am ci Kayaar moo tax ñu koy ñaanal yàlla sunu borom mu daje ngërëmam Serigne Touba. kon ñoo ngi nuyu itam ñi nga xamante ni ñooy suñu loxo ñooy suñu bët ñooy suñu tànk ñuy délégué de quartier yi ñoom seen nuyoo ñu ngi koy teg ci seen président El Hadji Daw Gaye mu jotale na ko ci commune bi yëpp te di leen xamal ni ñu ngi feddaliwaat suñu kóllëre ak yéen noo ngi leen di gën di ñaaxaat ci askan wi di am ci yéen mbégte lool lool lool lool yal na yàlla sàmm leen taxaw leen ndax seen liggéey kenn mënu kaa fay ndax nit su fekkente ni su gan ñëwee mu dëkkoo la te du xam gan gi mooy kan xamoo foo fu mu jóge nga fanaanoo ko kon kooku ñu ngi koy sant di ko gërëm di leen sant yéen ñëpp El Hadji Daaw nuyoo baa ngoogu waaye du ñu noppi di nuyoo te santuñu ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci dëkk bi yàlla suñu borom teg leen fi ñu nekk fi nekkal fi askan wi di liggéey suba ak ngoon di wàcc seen temps muy conseil yi nga xamante ni ñoo nekk sama bor ñu ànd liggéeyal Kayar conseil yi ñoo ngi leen di sant di gërëm di rafetlu seen taxawaay ndax bu ñu leen fayoon sax ñu man ni li ngeen di def bay gi moo tax waaye sunu borom def na loolu lépp dara amu ci waaye tamit ñu ngi sant ñi nga xam ni ñoom day tey jii bu ñu fi dee wax ab professeur mbaa ñu fi wax ab président de la république mbaa PCA mbaa leneen lu mu mënti doon ñoo ngi sant enseignants yi di sant directeurs yi école yi nga xamante ne ñoo nekk ci communicaire di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jàppale leen taxaw leen ndax yéen ngi taxaw saa su nekk suñu njaboot di leen jubbante ndax éducation yemul ci njàng rek ndax kii éduqué mooy yar mooy jàngale kon yàlla yàlla taxaw leen defal leen jàmm waaye nag tey jii ngeen xoolee daje nii mu taaroo war ngeen a mën a xam ni Kayar moo jóg su doon ni Njaase rek moo jóg mën naa ñàkk taaroo nii waaye nag yàlla sunu borom mi nga xam ni moo boole waa Kayar boole seeni xol seen xalaat seen bëgg seen ab dëkk jëm kanam moo waral dajab tey bii mu taaroo nii mu taaroo kon loolu ñoo ngi ciy sant subhaanahu wa taala di ñaan yàlla mu gën ñoo boole gën ñoo jubale ba yàlla sunu borom def suñu dëkk bi li fi nit ñi di seet si muy xéewal ak naataanga sunu borom saxal ka fi ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa waaye du ñu noppi itam di wax ni ñoo ngi sant képp koo xam ne tey jii défilé nga fi def nga sa man-man def sa xam-xam ci défilé bi ba mu am réussite bi nga xam ni am na ko kon ñoo ngi sant ñu doon défilé waaye ñu ngi sant itam ñi nga xam ni ñoo organisé ba nga xamante ni défilé mën naam am président Birame ñoo ngi lay sant yow ak yi nga àndal di leen gërëm. xool seen taxawaay lu mat daanaka man na ni ko waxee deux mois ngeen nekk fi ñuy liggéey ci loolu di waxtaan di coowoo di xuloo di juboo waaye ñu xam ne lépp Cayar moo tax ba tey jii bis bi mel ni mu mel kon ñu ngi am mbégte di am ak cant bu amul fu mu am fu muy commencé waaye amul fu muy yem président Birame ñoo ngi lay sant yow service sa vice président laaj nag waa Cayar jox leen njukkal tey du ko li mooy damay ñaan ñëpp ñu maase kenn ku ci nekk def sa loxo ni kuréel bi doon organiser bi organisation yàlla nañu fi yàgg te wér kuréel bi yàlla ñu fi yàgg te wér ci jëmmi Serigne Saliou waaye ñoo ngi leen di xamal ni bisab tey bii tam am na lu ko wundi bi mooy lan mooy suñuy maam ñoom day mën nañuy maamaat sax ndax ñoo taxawoon ci Sénégal gii fas yéene ñoom day bëgg nañoo jot Sénégal waaye lan lañu koy jotee mooy seen xel ak seen xalaat ak lan ak seen deret ndax la fa tuur ci deret kenn mënu wax laata ñuy jot lii kon ñooñu ameel nañ leen njukkal ñoo ngi leen di wax gàcceem ngalaama suñu wéyjur yu ñooñu nga xam ni ñoo jur suñuy bàyyi xeexal Sénégal ba tey ñu jot indépendance kon dama yaakaar ni nit bu la xeexalee ba tey nga am sa liberté am sa lépp bu ñu waxee rek la ca jaadu mooy jërëjëf kon yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen xara leen àjjanay firdawsi si barke yonante bi sallallahu alayhi tey jii nag bis bi feete nañu ko fépp ci senegal waaye man de jàpp naa ni tey jii li ma gis Kayar rek laa ko gis te du ma gis faneen ndax vraiment li tax ma gis ko dama gis mobilisation bi nga xam ne ay les jeunes ñi nga xamante ni ay ndaw lañu bëgg seen ab dëkk laxasaayu taxaw si bis bi ba mu mel nii kon la jeunesse ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm waaye noo ngi leen di doolee tàllal suñu loxo tàllal suñu loxo tàllal gu wér gu amul benn sikki sàkk suñu ànd defar dëkk bi nan jël kaar def ko suñu parti bu ñu jëlee kaar def ko suñu parti lu ñu bëgg si kaar daanu ko am ci kattan suñu borom ndax suñu wayjur yi àndoon nañu démb ak bëkk démb di xeex suñuy bàyyi di xeex tey ñun ñii nu xeex kon xeex bi yéen yéen ko dese waaye xeex bi na doon xeex ab xel xeex xalaat xeex ab jàmm ba li ngeen bëgg ngeen am ko ngeen def ko naka Serigne baa defe woon mooy jiyaatu nafsi bu ngeen ko defee réussite am mooy bokk ndey bokk bàyyi jubóo yéeneente jàmm suñ ko defee incha allah am naa yaakaar ni li ñu bëgg ci dëkk bi dinañ ko am waaye duñu noppi nag di gërëm ak di sant ñi nga xamante ni tey jii fii ñoo fi doon daan seen doole di fi liggéey di yóbbu seen i kër ñu toxol leen teg leen ab coono muy gaa waa gaaraas bi nga xam ne ñoo fi nekkoon kenn ku ne xam ne ne ñaari fan yëpp ñu ngi ci fitna kenn ku ne xam ne yëg na ko ni gaaraas ñu ngi ci fitna waaye président Modou Fall yow ak say njaboot ji nga àndal ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu sàmm leen wéral leen yàggal leen suñu kanam ndax bu leen neexoon ngeen ni nun kat fii duñ fi jóg bu ko defee coow am ñu ni waa Kayar ngay xeex waa Kayar ngay waa Garaas te loolu amul ndax seen yërmande ndax seen bëgg Kayar ndax seen sob Kayar te xam ni fi la seen nga nekk moo waral ngeen def loolu kon ñoo ngi leen de sant di gërëm ci loolu ngeen xam ni def ngeen waaye nag jigéen ñi gàcce ngalaama yéen wax dëgg yàlla ak yonent bi bis bi bu ngeen ko déggee ñuy wax taar bi jigéen ñee tax ndax yéen a sol ba mu rafet tubaarkàlla macha allah. wan ko seen i borom kër seen i rak ak seen doom kon yàlla na yàlla saxal fi teraanga fii ci dëkk bi yàlla na yàlla sàmm leen yéen jigéen ñi jubal leen wéral leen sans borom def leen njaboot ak lislaam su ko defee jàmm de am ndax njabootu lislaam ku ko am am jàmm kon noo ngi leen di sant di gërëm jigéen ñi bu baax a baax seen taxawaay rafet na ñoo ngi wax tamit nii insha allahu taala yéen jigéen ñi li ñuy doon doore ak yéen ñoo ngi si di ko def te fas nañ ko yéene yeggalee lijjanti woon ñu am ay collaborateurs yoo xam ni ak ay yoo xam ni ñu ngi leen doon jàppale ci wàllu am koom pour ngeen dem di liggéey waaye incha allahu taala fas nañu yéene muy yokku indi yeneen projet yoo xam ni jigéen ñi ñoom lañ si jàppale pour ñu mën a gën a jëm kanam comme jigéen ñëpp waaye du ñu noppi mukk di bàyyi di dem ndax guddik bii gi le troit am na loo xam ne xew na fi ñu bëri yëg nañu ko am na ñoo xam yëguñu parce que le 3 ASP yi nga ni vraiment seen liggéey rafet na flambeau bi ñuy def kaar gépp kontaan na ci ñëpp am nañ ci mbégte kon les ASP ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla ngeen am réussite ci métier bi ngeen yor yàlla bu leen ci am menn ndok kon kontaan nañ ci yéen bég nañ ci yéen waaye itam ñu ngi balu àq borom bitig yeeg borom cantine yi ndax wax dëgg yàlla nit ki war a xëy liggéey am teraangaam ñu xëy démb ba léegi baare seen boutique yi baare seen lépp liggéeyu leen waaye ñu leen si balu àq di leen si balu àq ndax àq la waaye àq jooju de ñu ngi koy dénk suñu borom ngeen baal na ko te ngeen xam ni pour defal dëkk bi rek moo waral li nga xam ni defal nañu leen ko waaye du mere leen du xaare leen du bundu xatal leen du dara bis moo ñëw boo xam ni noo yéen noo ko bokk ngeen ay doomi Sénégal moo waral ñu taxaw taxawaay bii ak yéen waaye du bañ dara loo xam ni pour yàq seenam koom la kon sant nañu leen gërëm nañu leen waaye itam du ñu noppi di sant di gërëm ndax bisab tey bi sant la rek ndax ñi ñuy sant ak li waral bis bi cant la ndax dañ leen di sant ndax dañoo xeex ba ñu am lii tey kon bu ci ñeneen la laawee di ci def lu rafet di ko ci wax daañu ko wax waaye du ñu fàtte mukk partenaires yi nga xam ne moom lañu am ñu nekk fii ci dëkk bi muy coréens yi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey yor fi ay usine parce que usines yi am na njariñ ci dëkk bi njariñ li si jiitu mooy gune jigéen ak gune góor ñu ngi liggéey di wàccaale seen koom di di dimbali seen i wayjur kon ñooñu ñu ngi leen di gërëm dañ si jiit ki si jiitu mooy Sewul Pêche ñu ngi leen di sant leen gërëm seen taxawaay rafet nañ gis nañ leen ci défilé bi Tamra Pêche Thioye international ñu ngi leen di gis nañu leen ak Fish Time ñëpp ñëw nañu kenn desul la pêche 153 kon ñu ngi kontaan ci nekk gi ñu nekk ci dëkk bi ndax saa su ne lépp loo xam ne xew na ci dëkk bi bu ñu leen envoyé lettre de soutien daañu si taxaw seen taxawaay ba mu mat sëkk. kon malgré que ay nasaraan la ñu dëkkuñu fi waaye ñu ngi dugal lu ñuy wooye développer la communauté kon ñu ngi ci kon yal na yàlla saxal fi liggéey bi. saxal fi liggéey na fi. tàllaar yi sax fi ba ñoom ñu mën fay yàgg des jigéen ñi xewlu mool yi xewlu jaaykat yi di xewlu waaye yemee bi ni gàññ ak wépp jën woo xamante ni mool dina ko jëfandikoo bay mi ni gàññ pompiteer bi ni gàññ sunu borom defit mu ndax loo berale sa jarul yàqu-yàqu moo ci mujj kon lu ñu fi liggéeyee rek yàlla na yàlla jubal lépp te barkeel ko li ñu siy dolli nag mooy ñaax waa dëkk bi li ñu leen di ñaaxe mooy ne ñëpp xam ni Kayaar gii kaar ak ñëpp la dañuy am ay gan yoo xam ne ñu ngi fi ñëw di def seen i teraanga nañu ubbi suñuy xol yaatal leen yërëm leen yàlla suñu borom bokk nu yërëm nun ñëpp lu ñu fiy sàkk ñu am ko nañu xam ni dëkk bii ñu nekk du lu nu liggéeyal yàlla moo tax mu def fi teraanga bii du liggéey bu ñu ko liggéeyal moom subhaana wa taala ba mu defal na ko dafa xam ni moo nu bind war noo jox jox nanu li mu nu jox nañ ko bokk képp koo xamante ni wàcc nga fi tey dox ci aw njub ku doxul ci njub nag na waa gépp jóg taxaw geer ka song ko mu jóge fi ndax jubadee ngi ci dëkk bi en pagaille te lépp gendarmerie mënu ko bu ñu ko bëggee ba gendarmerie fi ñuy ne ñi ñiy jubadi gendarmerie du leen xam du leen gis kon la jeunesse na ngeen jóg ñu bokk wooloo taxaw li nekk ci tefes gi ñu saafara ka njaami yamba mi ko gendarmerie mënul lépp waaye nun nooy mobiliser wu dindi ko ba mu set ci dëkk bi loolu nag la jeunesse ñoo ko moom bu ñu seet nit muy jaay yamba mel ni ku yor gerte ci tefes gi di jaay caaf ngeen di ko gis jarul ragal ñun futtiku ñun ñëpp xeex ka man nag maa nga ca kanam ndax lépp loo xam ne mooy sunu askan doon kaa xeex nañ ko mu jóge fi am na yenn façon sàngara yoo xam ne mu ngi fi dama ni am na ñu am licence amuñu licence nañ dem ci suñu licence ñun suñu licence mooy ay jullit lañu am nañu droit taxaw koo xamante ne da fi jaay loo xam ne yàq askan wi mu jëlale loolu mooy wax bi kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye message bi nga xam ni moom la ñuy jàllale suñu borom def na bu ñu ko waxee sax dañuy jàpp ni ñu ko copier ci président de la république waaye suñu borom seede na ni discours français bi nga xam ne moom la ñu bindoon defoon nañ ko ci barki démb barkaat démb secrétaire defoon na ko bind ko ñu def ko si mooy lan mooy nañu jël matuwaay yu ma sëkk comme li ma wax ci yàmbaa jeeg leen ni bépp doomu boo xam ne yàq moo lay ni ci dëkk bi parce que terrorisme am na bu ñu ko xeeb bu ñu bu ñu ko suufeel bu ñu ko manquel ndax lu am la lu am nag bu amee nit ñi dañ cee war a taxaw kon ñoo ngi ñaan dëkk bi ñuy faglu di fagaru fagaru ba mat sëkk ba loo xamante ni war na fee wàcc di yàq dëkk bi waa dëkk bi ñu bokk ci taxaw li si des nag fi may jeexale mooy maa ngi sant ñi nga xam ni maa ñoom ñoo bokk di liggéey ca mairie ba ñuy employé mairie ñooñu gàcce ngalaama ñoom waa Kaarame leen njukkal ñun ñu nekk fa ak ñu ñàkk a nekk seen taxawaay mën na sëkk rafet na secrétariat ak état civil ak comptable beeg seen liggéey rafet na gardien ya fa nekk ñëpp ñu ngi ñaan suñu borom yàlla jàmmal leen suturaal leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jeexal na di sant suñu bokki selabarkat yi gis ngeen leen ñoom defar nañu bu baax a baax a baax défilé nañu kon yàlla mi sàmm jàmm yàlla yàlla sàmm waaye ñi nga xamante ni mooy journaliste yi caméraman yi ñi nga xamante ne dañoo yor seeni seen seen i appareil photo di enregistré loo xam ne bu ëllëgee dañ ci toog di nit ñi di ko wan ñeneen ñu koy gis kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waaye nag mention spéciale ak suñu collaborateur suñu partenaire suñu xarit suñu wëlëre mbay sàmm ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal journal bi nga yor ak site bi nga yor yàlla na yàlla yokk ba nga mën a dem ak sa bopp am sa télévision ci gàttana suñu borom nun de lu la mën a jàppalee nañ la ko jàppale ndax képp koo xam ni xool nga Thiès 24 di nga gis lépp loo xam ni programme Kayar la lu waa Kayar di doxee soo demee ci site boobu Thiès 24 di danga gis programme bi yëpp allah rawati bii nga xam ne ñu ngi koy def tey jii bu ngeen ko xoolee bu ngoonee di ngeen ko gis ci site bi Thiès 24 kon Mbaye Sam gàcce ngalaama merci beaucoup kontaan nañ si yow mais nag li ma ci ñu nee Mbaye Samb rek nit ñi duñu xam kan mooy Mbaye Samb bëgg naa Mbaye nga taxaw fii tuuti nit ñi xam ni kii mooy Mbaye Samb baa nga taala sa loxo parce que vraiment dañ koy sant du ko gërëm waaw mention spéciale Mbaye Samb yow ak sa yeneen collaborateurs yi nga xam ne chaque fois bu ñu fa ñu ngi leen di gis ngeen di taxawal Kayar ci ni mu taxawee waxtu wi naaj na noo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp li ñaan subhaanahu mu defal ñu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah